boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyi ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi bàyyi xel ci biir réew mi ak bitim réew ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaara di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal Serigne Abdou Khadir Khalifa ak seen Daaru Assane suñu war mu yàggal ko fi lool te ànd ak wér mu mel ne ñoo ngi ci pakk bu euh, sell di pàkk bu màgg di daarul xuddoos mu mel ne ñu ngi gis njabootuk sëriñ daarul asan gi féete ci biir réew mi ak ci bitim réew dajee tey ci turu bureau fédéral bu jamaatu ahibaaw Cheikh Hassane mu mel ne ñu ngi taxaw ak euh, jëwriñ ji sëriñ maam daam Ndiaye mi xam ne moom la yàlla dogal mu jiite bureau fédéral boobu ñu woote ndaje mi ngir di siyaara seenub liggéey ngir di ko waajee màggal sëriñ daarul asan xam naa kon dañ koy jox kàddu gi rek mu leeral naka la ñu waajalee bis bi waaye naka la ñu waajalee bis yi ko jiit bis yi bis nekk suñu kanam muy màggal seen Daaru Asan ak yeneen bis yi xaw ci kanamam kon bisimilah sëriñ bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonante bi alayhi salaatu wa salaam di sant bu baax a baax sëriñ Daarul Hasan mi nga xam ne mooy sunu lépp euh, ci bis bi nga xam ne. Euh, moom lañ fi teew euh, mu doon bis boo xam ne xam ngeen ne njabootu sëñ Darou Assane yàgg nañ fee teew ci teewaay boo xam ne bu ñu liggéeyee am at bay waajal màggal gi nu war a dajeeg sunu kilifa sunu yaakaar te ëllëg muy sëriñ Abdou Khadir Ndiaye mi nga xam ne moo moo fi nekk xalifa sëñ Darou Assane di ko ñaanal mu yàgg fi loolu téwér mbooloo mi fas yéene muy njabootu kër sëñ Daaru Assane ñëpp fa yéene ñëw jàkkaarloo ak sëriñ bi siyaare ko jox ko seen i addiya mu ñaanal leen dénk leen loolu nag dafa bokk ci laytaay yi nga xam ne moom lañuy ñuy laytaayee bis bii nga xam ne mooy bisub sëñ Daaru asan loolu nag xam ngeen ne bii ñuy wax jamaatu ahiba u Seyxul Hasan di fédération bi farewoo ci Sénégal waaye niki noonu tamit fédération yi nga xam ne moo aju ci njabootu kër sëñ Darou Assane jëpp moo xam muy Italie ci njiitul Baye Talla Diop moo xam muy France ci njiitul Baye Mbaye Roxee moo tax moo xam muy Espagne ak ci kilifa yëpp ak mboolem réew yëpp moo xam Portugal ak yëpp yu mu ci mën a doon waaye ñoom ñëpp ñoo àndandoo di waajal màggal gi waaye na xam ngeen ne màggal gi Sénégal lay amee comme Sénégal lay amee kon fédération bii di euh, nekk Sénégal moom mooy li nga xam ne bokk na ci ñi ñuy jiital ñu organiser li nga xam ne mooy màggal gi. loolu nag ab taxawaay la boo xam ne war nañ ca ñun ñi ngi ciy def suñu kémt la kattan dëkk bii ñu koy defee mooy Touba Mbacké loolu nag dañuy wax ne effectivement bu ne fañ koy defee ñooña lañ koy ñooña la ñooy ëpp ca ña koy gën a taxaw looloo tax nag Sénégal ànd ko ak mboolem diaspora bépp tey jii nag bokk ci bi yi ñu waajalee màggal gi muy ziare bii ñuy def fas yéene nag jàkkaarloo ak sëriñ bi euh, leeral li nga xam ne liggéeyu fédération bi la ci ab tënk rawatina li fi ruusee tey ji ay euh, versement te bàyyi ko ci section yi nga xam ne bàyyi ko ci mboolem njaboot sëñ Darou Assane gi moo xam biir réew mi wala bitim réew loolu secrétaire général bi dana ko liir incha allah tamit euh, kaddu gi nga xam ne mooy kaddu président bi euh, sëñ Abdou Ndiaye wilaya moom moo ko fas yéenee jàllale wax ci biir mbooloo mi ak kaddu yi mbooloo mi jëmale ko ci sëriñ bi. su noppee euh, kaddu diaspora bi euh, euh, dana am incha allah niki noonu tamit kaddu sëriñ bi mooy tëj jotaay bi. niki noonu tamit xam ngeen ne di set fas yéene noo amal li nga xam ne mooy set setal tàmbalee ko ci marché Darou Khoudoss ba ci tokkoor ba fépp ci dëkkuwaay yi njabootu ko sëñ Darou Assane loola ci commission sociale moo koy taxaw niki noonu tamit ci bu gënee jege màggal gi commission communication lii bokk na ci ab liggéeyam ak li passé. ak li ñu dëgmal ak émission yeeg plateau yi ñu war a def ci li nga xam ne mooy rajo ak télévision yi loolu lu am solo la te ñu ngi bëgg mbokk yi bàyyi ko xel waaye xam ngeen ne bu ñu àggee ca le le 19 euh, sedaat yi nga xam ne ñooy Minanu Baaxil Xaddim ñooy amal fii waxtaan bu am solo euh, fas yéene ci ànd ak daayira bi waaye sunu su noonu ñu ko ca àndee nag loola laytaay la ba tey ci bis bu mag bi ni incha allah bu ñu xëyee ci bisum màggal gi euh, li ñu fas yéene nag comme niñ ko daan màggalee. mooy woote mbokki taaliba yëpp daje ci njàngum alquraanu karim ak xasida salaatu ala nabi ngir dundal bis bi waaye ngir taxawu ñi nga xam ne dañ dañoo wéradi te soxla ku leen may deret ñu fas yéene ànd ak ñoom kon danañ ko dundal ci saahir dundal ko ci baatin niki noonu tamit danañ ànd ak mbooleem gan yi dem ak dikk berne bi tamit kasaalika ak mboolem ñi nga xam ne danañ ñëw ci màggal gi ñu ànd ak ñoom ci taxawaay bu am solo di ci woo mboolem fédération yi yu eh, bari bu ko defee noonu tamit ci ngoon gi la ñuy ànd ak sëriñ Xaadim Silla mi nga xam ne mooy def waxtaan wi di lu am solo kon loolu mooy ab tënk ci li nga xam ne moom lañuy ñuy waajale màggal waaye nag ci teewaay bii ci lañ koy daanelee mbokk yi teew image yi rafet lool muy ñëpp sol seenu tëni muy bula bi teg ci li nga xam ne mooy kol gu weex gi loolu ci ndigalu sëriñ bi kon nekk na lu am solo liñ ci jublu rek mooy ñun ñëpp yàlla dafa dogal ñu bokk doon benn ñun ñëpp yàlla dafa dogal li amoon lépp muy ay bis ñu boole ko mu doon benn kon sunu melokaan tamit lañ bëgg boole muy benn loolu lañ ciy jublu muy laxasaay ak yëpp yu mu ci mën a doon. waa jërëjëf sëñ Mame Dame Ndiaye ci kàddu yu am solo yooyu ñu fàttali leen ne moom moo jiite euh, bureau bi di bureau fédéral nga xam ne ñooy waral jataay bii ñooy ziare ànd ko mboolem njabootu sëñ Daara Seen gi féete ci biir réew mi ak bitim réew noonu ma ko waxee léegi lim na programme bi nga xam ne moo dox fii ak suñu diggante màggal sëñ Daara Seen kon mbokk yi bàyyi xel nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax comme noonu mu ko leeralee ñu ñëw ànd koog mboolem njabootu Serigne Darou Assane gépp ngir bu ñu àggee ca màggal ga lépp ñu ci doon wut ñu am ko kon sëñ maam daam ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la sant bu baax di la gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche foo leen mën ne bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo